nga xamante ni moom monsieur Goumbala ñuy jéem a jël quelques secondes nii rek euh, am euh, appréciation sinon gis-gis bi mu am ci li nga xamante ni moom mooy euh, mbir mi. mon père vous êtes en direct ci Sen Teranga TV ñu ngi lay maa ngi leen di fay di leen gërëm. de votre présence. waaw. Mhm. teewaay bi xam naa ne duñ la ko laaj mais teewaay bi. teewaay bi ma teew fii mais teewaay bi c'est nécessaire. xam nga man li ma fi nekk avant yëpp man ñoom ñëpp xamoon nañ ne man dem na xam nga man dem na la proche demoon naa it ca stade ba ñëpp gis nañ ma nëbbuwuñ xam nga lu ñu ma daan wax gumbale sa gars yi est-ce que xam nga li la wax donc c'était très clair mais après j'ai tout fait pour que Déthié fekk si ma ak gars yi fekk si ma parce que fii dañ ko doon baare vingt quatre heures sur vingt quatre dama fi dee ñëw di négocier police yi gendarme di wax ak ñoom barrage yeeg yooyu combat bi combat bi pour li am alternance bi Macky Sall dem mais ñaata at laa ci def ñaata at laa ci def fu ñu mësaa di xeex maa nga fa ganaaw léegi xeex nañ ba mbir mi aboutir ñu dem ñu lancer gouvernement bi ay difficulté commencé am ndax opposition bi mi ngi commencé jóg di ko emmerder avec la conjoncture international mais ñun buñ teegee yetax opposition ba doon xeex mooy si dellusiwaat donc il faut ñu ànd ak euh, euh, le président Bassirou Diomaye Faye ànd ak Sonko euh, ànd ak Sonko pour gagner élection législative yi man maa ngi te booba ba tey it maa ngi waxtaan ak Déthié Amadou Ba mi ngeen dégg muy wax mooy Amadou Ba bu Pastef bu ko kenn jaawoo rek Amadou Ba benn waaw daal dañ si doon dox ay tànku ay tànku jàmm mais dafa mel ni mbir mi dafa xaw personnel parce que si waxam dañu dégg euh, waxtaan am na waxtaan am na donc à la place de. personnel mooy lan. personnel mooy maanaam waxtaan bi seen diggante loolu moo tax mu ñëwaat. kan lay waxtaan il faut mu wax. mais Ousmane mooy parti Pastef ah booy dem ci parti kay il faut nga waxtaan ak borom parti bi. waxtaan bi noo ko bëggee nee ne parce que am na ñoo xam ne dañuy dal si kaw Ousmane Sonko parce que jàpp nañ ba ñu fi nekkee sept mois yi ba léegi defuñu dara moom. gis nga sept mois yooyu ngeen di wax képp ku xam addina bi conjoncture internationale bi ku ko xam xam ne sept mois yi def yi ñuy wax ne defuñu fi defu fi dara kaay dend ak man yow itam ma présenté la kii moo nekk l' ancien maire. non je suis actuel maire. ah da ma le maire de. Kër ma Maba Diakhou moom it HCCT. HCCT la newoon. mi ngi woon ci Benno Bokk Yaakaar léegi nag ñëw na fekk si ñu ci xeex bi ñun ñëpp ñu nekk ci Ousmane Sonko pour battre campagne ensemble et avoir une majorité au moins de cent quarante députés cent quarante députés mi ngi nii. waaw moom nag kilifa la fa mu nekk te am na fa kàddu te lu mu fa wax moom mooy am dep euh, euh, euh, communauté rurale am ou bien maire sur circonscription ba moom moo koy gagné. kon wax naan dafa war sàmm sàmm sa kàddu gisee woon noonu yow. dafa. dafa war sàmm sa kàddu c'est war mooy lan tournure bi sàmm sa kaddu jël mais Déthié bu ko xamoon du fa dugg gisoo tournure sàmm sa kaddu bi ñu jël mais euh, loolu Déthié mënu faa nekk ka sàmm sa kaddu gis nga ni ñuy defee Déthié pendant longtemps am na réunion yu gars yi def demu fa ndax Déthié foofu de place am foofu de place am sàmm kàddu sa kàddu mais ñoom ni ñuy def des va-t-en-guerre des jusqu'au boutiste mais kenn mënut a ànd ñoom c'est pas possible. Bougane Gueye Dany mandat dépôt. ah Bougane nañ ko mandat de dépôt je souhaite que mu gën gaaw génn ci jàmm salaam dellu sàmm sa kàddu def campagne électorale ni mu ko gën a de ni ko bëggee. mais le 30 lañ koy jugé mais gis nañ Barthélémy Dias artu euh, ak xale ko doon sonkorisé ci devant le tribunal xaw na ci mer ba diggee rendez-vous ni le 30 du nangu yu mel noonu di amaat. du amaat fan. foofu noonu ca tribunal. ca tribunal fële. bu boobaa le 30 on va observer et constater rek lu ñëwagu trante est-ce que gos si dañ koy sonkoriser wala duñ ko sonkoriser xamuñu ci dara mais nag un responsable de son niveau am na lu mu war a waxe Barthélemy sama xarit la sama lépp la on a d'excellentes relations Bougane sama xarit la sama lépp la ñoo dend mais mais boo nekkee kilifa am une certaine posture da nga war a am un certain comportement ndax réew mi sénégalais yi ñoo koy joxe. bu ëllëgee kuñ ko jox jox la ko loolu mooy xeex bi. kontaan na. jërëjëf mu cëkk. merci beaucoup. mbokk internet yu euh, Sen ngeen ko gisee d'ailleurs dañuy euh, jéem a euh, dem. ah ñu ànd <laughs> faire gumbala la ñu nekkoon di euh, voilà la nekkoon di euh, jël pour am appréciation mais bon dañuy jëm a doxantu euh, pour jël ñi nga xamante ni ñoom ñooy leader yi donc Ousse. voilà xam naa euh, le temps que ñuy euh, arrêté li nga xamante ni moom mooy direct bi mbokk internet yi nga xamante ni ñu topp gis ngeen ni buntu bi nag également am na ay nit gis ngeen ni euh, nit yi fees nañ fi fi dal pour ñi nga xamante ni ñu ngi topp donc voilà maa ngi dem rek sama sama confrère et sama xarit le grand chroniqueur Sagna voilà alors Sagna maa ngi lay maa ngi lay fay Ouzin. en tant que observateur nga gisee retour Déthié Fall alors sans surprise eh, premier jour ba mu defee conférence de presse am dafa wax ni y' a pas amul contact digganteem ak Ousmane Sonko loolu moo tax mu rejoindre la coalition Samb sa kaddu sur place ñi ñu nekkaloon na dama leen ne léegi bis bu rencontré Ousmane Sonko cela veut dire que dem après ñu toog di observer la chaîne politique de euh, observer l' actualité ñu gis ni les différentes sorties yi xamante ni waa Samb sa kaddu def nañ def nañ ko gisuñu ko ci lan moo waral loon à chaque fois ñoom de bu ñu defee sorti day na ñu fi nekkul woon dañoo disponible gul dañoo am euh, dañoo annoncé ni sont pas disponibles tey jii gis nañ ni loo xamante ni moom moo di sa euh, déclaration moom moo di. amuloon na benn euh, euh, contact ak Ousmane Sonko ay jamono waaye principam am ak gëm-gëmam boo xamante ni doxal amoon na ko si diggantem ak Ousmane Sonko may ko woon à un certain moment mu daal di opposé foo xamante ni moom moo di Sonko ak euh, Diomaye te jii bu leen rejoindre dafa nekk loo xamante ni c'est sans surprise mais juste quelqu'un bu fekkente ne copié na ki nga xamante ne moom moo ma ndax yaayu contact entre Malick et Ousmane Sonko wala le président Bassirou Diomaye Faye xaw ma mënu ma ko confirmer mais voici quelqu'un qui est resté neutre constant dans ses positions ñi ñun ñoo doon xeex démb ñun ñoo doon xeex démb pour ak benn principe ñoom bu ñu egsee mën ma toog en moins d'une année mais daal di opposé ak ñoom dama leen di sur le plan euh, sur des démarches principes maintenant moom amoon na engagement amoon na ambition servir le pays comme ñeneen ñi contacté ñu ko mais mën na jaar ci beneen coalition servir leen te yaayu contact mu rejoindre leen sans surprise Ouzin. mais mais mais aussi euh, diggante bi espace bi euh, xawul gàtt diggante bi xamante ne à presque une semaine de l'élection législative mu désigné. Mhm. alors waxoon na ni am na ay bonne volonté yoo xamante ne dañoo jóg sol seen daal ne ko yow ak kii da ngeen mos a bokk ay gëm-gëm ñëpp xam nañ ne ay jamono de deux mille vingt et un à deux mille euh, février deux mille vingt quatre ñëpp gis na ni le siège Pastef était inaccessible d'ailleurs c'était dissous siège Déthié Fall boo fi ñëwee tout le temps y avait benn euh, convoi gendarme boo xamante ni ñaar lu mu dee dee dina am ñaari oto yoo xamante ni fii la dañuy barricade fii ne du dugg léegi nag ki xamante ni yéen da ne a bokk principe boobu léegi nag ngeen am attachement boobu noonu finalement bu gisee nii moom mënul opposer ak ñoom contrairement ñoo xamante ni ñoom ils ont préféré de le faire à le faire ki xamante moom moo di Barthélemy Dias lan la wax démb dafa ne ñoom Sonko lii lañ doon opposé kon ñoom tamit mun ngi may dara il faut ñu opposé à la même rigueur contre ñoom moom mu gis ni loolu bu ko defee de daal di trahir loo xamante ne moom moo di ses principes ses convictions ak ses valeurs yi xamante ne moom partagé na ko ak suma Sonko tey bu ko rejoindre tamit mu euh, du nekk euh, c'est sans surprise dafa mel ni tey ñu ne la euh, Maimouna Bousso ànd na ak beneen coalition bu départé ñëw ànd ak Pastef ñi dañu naan c'est sans surprise puisque fii lu mu gëm ñoom ñu gis ni ñoom ñu ils sont là même pas un mois yow nga daal di nga ne da ngay taxaw di leen opposé wu day nekk loo xamante ne ça sera contradictoire du point de vue de le principe euh, politique